ay ba tax na nag euh, man euh, loolu jombale naa ko sama bopp quoi teraanga Sénégal jeex rek ma bàyyi euh, waa Facebook live rawatina waa Instagram bi maa ngi leen di nuyu ah yéen ñi toog ci kër yi tamit souvent mën nañ ci tànn kenn ci téléphone bi yëkkatiwaat suñu yéenee may leen ko ci cadeau yi nga xamante ne nii man maa ko créer man man maa dem uti ko ah nit ñi dañ may woowee fu ne naan ma Amina dañ la bëgg jàppale ci waa Facebook live bi. Hmm? ñuy nuyu euh, kenn koo xam ne moom itamit macha allah démb dafa xawoon euh, wopp euh, ñu jàppale ko li ñu am ci suñu doolee ak nit ñu baax ñi nga xamante ne jàpp nañ ci xam nga man mënu ma def ay affaire de aide nag franchement aw ma boobu jot et puis dafa metti mais nag souvent li ñuy am ci suñu wërsëg mën nañ koy bokk ak yéen ah bu leen fàtte suñ suñu borom rek moo fi nekk ngeen gën a am courage te góor góorlu dañ nekk nag ci mois de mars muy weer boo xam ne weeru jigéen ñi la kon nag duñ def rek tey lu dul journée bi tàmbali tàmbali nag euh, démb ñëwuma ci le premier bi waaye tey nag dañuy enchaîner rek tàmbali nag bégal xale yu jigéen yi si àddina bi yëpp hmm, na góor ñi bégal jigéen ñi Aïcha daw leen ku ci nekk loo am loo mën ci wax ju neex ci teraanga nga jox ko sa yaay sa jabar say sœur parce que ñoom rek ngeen fi am ñu dem nag déglu ki nga xamante ne chaque jour mu ngi fi euh, euh, pour les femmes muy Fatou Guewel Diouf hmm, Aïcha ñu dem déglu son bu neex boobu nga xam ne moom la moom la génne mois de mars bi Abdoulaye boo ko yokkee ñu jël kon jigéen kon nag euh, daw leen ngeen euh, toppatoo jigéen ñi suñ borom moo ko njëkk wormaal jigéen yàlla moo ko gën a suturaal moo tax nag ci euh, weer yiñ leen di sargal war na tax ñun jigéen ñi ñu profitoo xam ci suñu bopp souvent nit dina am loo xamante ne nii même boo ko koy defal ci lu baax parce que jigéen dañ ko war a sargal mais ci kaw moom i tamit mu sargal boppam ci kaw mu fulaal boppam ci kaw mu jox boppam valeur nit nag bu amee valeur loo ko jox da nga koo dolli mais mayuloo ko ah ba tax na buñ jàpp rek ne weer bi weeru jigéen la dañ war a sargal jigéen ñi ba tax ñuy sargal ñépp fàttale yow benn jigéen nga ne man weer bi saa yu jotee kenn du ma sargal ku ne mën ngaa sargal sa bopp ndax teraanga ku ne mën na koo defal boppam ndax baax rek teraanga la jub rek teraanga la yiw rek teraanga la yiw nag buñ ko waxee nit ñi dañuy foog ni mooy sol lu yiw mooy muuru mooy julli am na ñoo xamante ne dañuy muuru di julli sol lu yiw di wax wax ju yiw te fu ñu weeteeg seen nawle yàq koo xamante ne kaso dana ko ca fekk wala ay nawleem xeeb ko kon nag ñun jigéen ñi balaa kenn di ñu sargal nañu sargal suñu bopp ni ñuy sargalee suñu bopp mooy ñu xool valeuru jigéen li nga xam ne euh, jigéen mérito na ko yelloo na ko war na ko am apply Viviane woy na jigéen ñi Kumba euh, Gawlo it woy na jigéen ñi loo amaat ci jigéen ñi rek boo ma ko joxee ma jël parce que nee naa leen tey dañuy bëggal jigéen ñi nag di ci bégal nag koo xamante ne macha allah borom Aminata Tour kooku nag sama mag la muy Adja Lo njàmbur njàmbur bi jóge ba Louga nag wàcc ndakaaru gi waaye jaaxalul ay mbokkam benn yoon koo koy ajaaloo loo gay del yow loo dund doyul ñu ngi lay sargal ci weer bi amaana si le 8 mars dina fekk ñu jël li ñu am ci ay jours ci congé pour noppaliku moo tax dañ koy anticiper avant le 8 mars ndax 8 mars nag xam ngeen groupe Futurs Médias rawatina TFM ni ñu xarañee dinañ fi teg ñoo xamante ne nii yéen jigéenu Afrique du ngeen namm dara rawatina sénégalais yi foo mënti di nekk. valeur u jigéen mooy même boo génnee sa réew dem àll bul ne fii ma nekk aw ma fi mbokk lu ma neex laay def parce que sénégalais téyewut làmmiñam la nit ña nekkee ci àll bi mu yaa xam foo ne ci àddina Europe ba Asie sa benn nawle sénégalais moo lay gis ñëw nettalil la te yaakaar naa sa réew loo fi ñemewul a def bul dem réewu jàmbur di ko fa def il faut ñu joxaat suñ bopp gëdd joxaat suñ bopp ay valeur mooy xool li nga yéene sa nawle jigéen nga xool ko bu baax ci sa bopp ne man kat mbub mii may maye dama ko natt jotuma kon duma ko solal koo xamante ne nii sama nawle la ñu bëggante surtout ndax souvent jigéen mooy mooy tukkal jamono ndax dañ koy wax xaalis ak jigéen dafa ànd ak seytaane moo tax il faut ñun balaa kenn di ñu sargal ñuy sargal suñu bopp ndax souvent di nga wéet yow kese doo gis copain bu la sargal doo gis frère bu la sargal doo gis jëkkër ju la sargal waaye da ngay ci sa bopp ndax lan nanga mel ku ñëw sant yàlla la waaye ku ñëwutit sant yàlla la ndax yow lu la nit ñi waroon a defal yëpp def nga ko ci sa bopp def ko ci sa njaboot ndax bu leen fàtte nag ne am na jigéen ñoo xam ne jigéen lañu waaye dañuy taxaw taxawaayu góor jigéen ñooñu nag buñ ne dañuy sargal jigéen ñi jigéenu jàmbaar ñee tax ñuy wax mooy jigéen ñi nga xam ne xaaruñ góor xaaruñ jigéen te lu ñu am seen ñaq leen ko may jomb nañoo sàcc jomb nañoo fen kon tey nag dañuy tàmbali rek pour sargal nag jigéenu jàmbaar yi mais am na yaafus yoo xam ne lu ñu am nettalee leen ko may lu ñu am dañ koo lijjanti ji ci anam boo xamante ne neexul suñ borom ñooñu yaakaar naa bu ñu la ñëwee di la sargal sax boo weetee di nga xam ne man lii ñu may waxal nii mérité wu ko ñu dem déglu appelay euh, beneen son bu neex boo xam ne war nañu ko jox ñu ñëw nag tànn ci Facebook live bi juróomi nit yoo xam ne bëgg nañ leen a may ci cadeau yi nga xam ne euh, sama rakk ji euh, lépp luy may up ci àddina jóge Amérique moom moo koy jaay mu may ma ci ay sachet ne ma may naa la pour waa euh, Facebook live muy Fa Beauty ay ci appulaay bu son bi paree rek ma jël ko yokk ko nag may ñu son be <laughs> Kumba euh, Gawlo lu mu woy réalité la souvent boo xamul fi nga jëm da ngay déglu kilifa yi waaraate wala nga déglu artist yi am euh, expérience du moins ndax loolu daf lay guider day tax nga gën a am jom li ma naan su ma bëggee bëgg dëggantaan Thione Seck lay déglu waaye bu ma bëggee jël sama voix normal pour sama deretu gaynde ma yëg ko damay déglu Youssou Ndour yox ko ba mu sës parce que musique da lay guider musique da indiwaat musique am na ci yoo xam ne dalay dalal ba nga dal waaye am na ci yoo xamante ne daf lay wan ki nga doon kon jigéen bu fekkee ne dañ ko uh, utal weer spécial góor ñi amuñ uh, weer defe naa ah. parce que maa ngi doon dégg temps yee ñu naan nañ wut uh, weer boo xam ne dañuy def fête des pères kon li li li jigéen am am na ay feetu yaay ah am na feetu yaay ah am journée spéciale pour les femmes ñu jagleel ñu yooyu yëpp jigéen war naa moytu <clears throat> yii may bëgg a lim nit day gëm boppam ndax nekk jigéen am valeur nga judd ni nga juddee ñu toppatoo la ba nga màgg pattoo làggoo yaakaar naa ni dangaa war a wér sa bopp ci suñ borom bu ko wér ci benn doomu aadama ndax santage euh, ci àddina bi jigéen ñi lañu koy def lu ëpp yow war ngaa jomba jël sa yàpp yaram bii di ko dugal foo xamante ne loo am sa doole mayu la ko ndax souvent da ngay gis benn doomu jàmbur di yaakaaru ndeyam yaa xam caat nga walla taaw nga di sa yaakaaru ndey di sa yaakaaru baay jigéen mu jaral ko mu teg la ci ruq wutali la ay maaman yoo xam ni dañu lay takk ba nga dëgër yow la ngay may xale bu jigéen bi di ko ko yónnee ci ay chèque di ko ko may ci liquide tey sa tànk papa bu damm woon ñu war ko yóbbu principal cent mille di ko tabax doog ko jox kon jigéen mën na defaraat góor gu bon jigéen dafa war di defar war nga mën a ànd ak sa nawle mu nar a sànku donte sa copain la donte sa jëkkër la donte sa xarit la parce que góor ñi ci Sénégal ñëpp jigéen ñi rek lañuy ñuy yow war nga woon mën a fréquenté góor ñu naan ah diw de diw xaritam nga war a góorgóorlu ba diw lu mu def bu jaaxalee ñëpp buñ la wooyee yow jigéen nga ne ko lii dootul am parce que principe mooy tax ñëpp fonk la ki nga àndal bu la nawee tuuti boo ko fekkee ci lu ñaaw boo nee ko Abdou bàyyil Abdou dina bàyyi déedéet mais am na ñoo xam ne xooluñ ci Abdou lu dul wërsëgu Abdou iri Abdou ci biir këram di ko jox loo xamante ne bu ko lekkee tàqalikook sagoom di ko sëf di ko jox ay noob yow Abdou war ngaa xam ni kooku bëggu la kon jigéen ay valeur dañ ko war a xoolaat parce que weer bi dañ naan weeru jigéen la jigéen ñëpp foog ni profito war ngeen ci am fleur noo am na ñoo xam ne jaruñ sargal ndax jigéen ji mën a jël doomu jàmb di yaakaaru ndeyam ak baayam nga war koo mën a jox ay noob mu bàyyi jabaram bàyyi ndeyam bàyyi baayam topp la te yow doo jabaram doo daraam dañ foog ne jabar yi rek kay liggéey souvent nga génn koo xamante ne dalay def loo xamante ne doo jox bopp say mbokk doo jox bopp say sœur doo jox bopp say xarit ñëpp képp ku lay wax dëgg doo ko jox bopp te lu ñu wax nga ne daf maa iñaane gel bi <coughs> gel buy def lu bon ku ko bëgg ba di la ko iñaane il faut que ngeen delloosiwaat seen xel nga ne man nopp bii may jox frère jàmbur ku ko joxoon sama frère du ma neex nga ne man sëf bi ma nara sëf freeru jàmbur ku ko sëfoon sama frère du ma neex parce que nit mi ngi bëgg a jug doxi soxlaam fi mu tëdd lay tëdd di waaj ndax def nga ko loo xamante ne mënatul def dara ci àddinaam foo ko fekk yaram bee ngi tayal léppam di sedd guy guy guy foo ko fekk mi ngi jàmbat yaram buy metti bopp buy metti ndax lan def nga ko loo xam ne xelam du nekk ci kenn ku dul yow ndax lan chèque ba muy bind di la ko jox ndax lan oto bi ngeen di dawal Sénégal il faut que jigéen ñi wàññi affaire matérialiste cheveux naturel <clears throat> or surtout oto ku ci moytuwul yooyu barki Cheikhul Khadim Mbàkke di nga sànku te valeur jigéen mooy nga takk sa ndigg lu la yàlla may nga jël lum la mayul nga xam ne lii mayuma ko bul teg bët te léegi concurrence bi moo indi problème yi ci dëkk bi Amina Poté génn na télé démb montre ba mu takk alors que xamoon nu ma def ba am ko mën nañ ma ko may sama fans mën na ma bëgg may ma montre bi montre bi samay patron kenn mën na ma ci apprécier may ma montre bi léegi yow man na ma ko amee du bokk yow ak na nga koy amee te force da nga war a am montre bi léegi ni nga war a amee montre bi mooy da nga naan Abdou mii mës na ma may un million danaa ko def loo xam ne suba cinq million la may may il foog ngeen bàyyi xel te xam ne yàq doomu jàmbur te ëllëg doo ko sëyal doo nekk ëllëg jabaram doo ko jural ay doom nga toroxal ko ba ëllëg kenn dootu ko bëgg wala bu takkee jabar du ko amal njariñ am na lu ko gën parce que noob yi ngeen di dégg yëpp jigéen a koy def waa ndax jigéen ju dëkkee noob góor gum gum dul tëyee jar naa sargal jigéen ji ngay euh, góor gi ngay liggéey di yàq àddinaam est-ce que jigéen jooju jar naa sargal jaro sargal man duma ma sargal ko bon yow bala ngaa am jàmm liggéey ma ba sama yaay dootuma ko jox bopp bala ngaa am jàmm liggéey ma ba sama mbokk yi kenn dootuma leen amal njariñ I love you tons million yu ma am indi la te sama papa tey bu amoon problème mu 100000 tànk ba damm mu war a dem principal bu ñu ma woowee dama naan leen fu ma koy jëlee te loo am yóbbul ko jigéen loolu da ngay xalaat ni lii liggéey la jigéen ji ndax lan. da nga ko fekk mu mel ni tubaab nit dana weex tàll te du am valeur nit dana ñuul kukk sangu ba set te billaahi du am valeur arrêté leen ñu leen di incarner ay affaire complexe nit du complexé yow jigéen ju yàlla defar ci kaw suuf bu dee góor gu gëm sa bopp nga war nga koo mën a am dignement te xaalis du tax sañse du tax oto du tax waaw parce que jigéen ji ah day génn télé wala ci benn société entreprise bu mag la nekk nga war a mën a ànd ak moom di jël yow sa xaalisu liggéeyukaay di ko ko këpp bàyyi sa ndey bàyyi sa baay bàyyi say frère bàyyi say sœur ëllëg boo toroxee mu sànni la dalay leer na jigéen jooju yàgg ñeneen a ko bokk li muy woote ci àddina bi yëpp nga foog ne noonu la mel dara du ci dëgg ndax yow ni nga tuutee mën koo iri noonu la ko ñu gën a ndaw di iree te duñ ko jox ñaari dërëm boo ko bëggee seet si këram sax mu gëm loola naan la waaw man xam nga kilifa laa ci Sénégal sama société wala man xam nga TFM laay liggéeyee sama ay euh, patron souvent ñu ñëw fi damaa bëgg nga wut appartement ñu ma la fay fekk doucement bañal képp ku lay génne ci sa famille di la dugal ci beneen kër goo xam ne moom kese la fay fekk boo deeyee du la déclaré te mën ngaa nëb il faut ngeen ubbi seen xel yi jigéen dafa ànd ak seytaane jigéen ñi sonn nañ de góor ñee leen sonal de mais kër yaa ngi tasaaroo à cause de jigéen tey ñu ne euh, euh, euh, c'est le journée de la femme weer bi weeru jigéen la dañu war a sargal jigéen ñi mais il faut ñu xàmmee ñi ñuy sargal mais Sénégal mm, bu weer bi jotee fleur yi génn souvent ñi ko mérito dëgg joxuñu leen ko xam nga kan moo mérito fleur wu 8 mars ki nekk yi teel a yeewu dem Soumbédioune takk ndiggam di liggéey ndax jëkkëram ak ay doomam ak ay waajuram kooku moo tax ñu ne ko yow yaa moom la 8 mars jigéen ji nga xam ne jëkkëram amul dara muy liggéey te yàlla tax téye njabootam téye jëkkëram te mosu koo xas kookoo ko mérito jigéen ji nangoo jur ay doom te musul planique ndax bañ lu naqari jëkkëram jigéen ji nga xamante ne nii fu jëkkëram xiifee du ko ko wax ci ay bëtam lay xool xam ne sama jëkkër ji xiif na wala mar na wala banque na mu faj soxla bi kookoo jara sargal il faut que ngeen xam ne 8 mars du pour tout les femmes parce que nag ni góor ñi amee ñu baax am ñu bon noonu la jigéen ñi amee ñoo xam ne ñu ngi tas suñu société bi te xamu leen ko il faut ñu bàyyi xel xam ne Amina day génn télé waaw lan mooy star am nañ valeur dañuy génn télé nitu public lañ mais valeur nit a koy jox boppam man bu may génn télévision te joxuma sama bopp benn valeur ah bu ma toogee ci écran bi takk sama ay bijoux teglante sama tànk di wax ay wax loolooy valeur non non non non non. lii may def nii su ma paree damay summi yére bi teg ko te sama valeur dama ko judduwaale boo may rey damay ànd ak moom valeur du denc nit valeur mooy boo wéetee yow ak yàlla ak yonent bi kese piège ñëw wala chantage wala say bëgg-bëgg danga naan sama valeur mayu ma ma mën a jël xale bu góor bii di ko def loo xam ne ëllëg dina bàyyi ay mbokkam ndax lan million yi mu lay jox mais jaru ko apply boo amee beneen son wu jigéen nga may ñu ko ñu sargal jigéen ñi nga xam ne mérito nañ ko ñi nga xam ne bañ juddoo ba tey lu ñu am ñoo ko liggéey ñi nga xam ne lu leen góor defal ci seen biir jigéenu jàmbaar mooy jigéen ji ŋànk njabootam comme muus te lu mu am dooleem moo ko may parce que souvent nag boo de boo créer thème il faut que nga leeral carrément lan moo indi wundu lii ngay wax parce que ay wax di sànni génnul ci télévision kii benn xale bu góor boo xam ne la presque famille bi mu bokk moom rek la ci yàlla gën a teral moom rek la ci yàlla gën a teral te famille bi mu bokk ñëpp ko nawloo waaye nag àddina mën ko àddina mën ko ba jigéen ne càpp ci moom mu dëkk ak ay mbokkam jigéen ne ko fa nga nekk mënuma la faa seet si il faut que nga tuxu muy kër kër yi di wur kër ndaxte commencé woon na di ko may million 2 million 3 million ba mu xamee ne million yi ngi yéeg te kii damaa war a gaaw dagg bopp bi ndax man dama am leneen lu ma war a lijjanti parce que nobu ko am na am na copain boppam xam nga jigéen moo war a moytu nit ñëpp dem ba xam ni dóorkat nga jigéen moomul ay njuuj njaay mën nga yor sa mën nga dem ba amoo métier nga yor sa carte dañ naan amul amul amul métier te oustaz yi dañ koy firi ay temps dañ naan am na ci jigéen ñoo xam ne lu ñu def suñ borom mën na leen koo jéggal ndax situation moo tax parce que boo yoree ay njaboot yor sa ndey war leen a dundal te rus ngaa ñaan yow nee nañ la may nañ la ci loolu nga nekk yoon du la ci topp dara waaye bés boo demee ba situation changé mën ngaa tuub yàlla xam ne dañ koy tooñ moo tax mu wàcceel ñu gën mbindéef ñu denc ko ca ca Médine pour nit ñi mën di dem ca Kaaba ga pour mën a faxas seeni bakkaar ndax yàlla dañ koy tooñ mu ñuy baal mais am na yoo xam ne suñ borom du ko baale ndax yow yaa ngi jël doomu jàmbur taqale kook famem wutal ko appartement boppam ndax lan bëgg a profité nax ko mbir mi am fit ñu war ko koo jottali bu déggee baax na bu déggul baax na te noonu ñu def xale bu góor bi dañ koy def ay jëkkëru jàmbur ay temps nga am jëkkër ñu ërtal sa jëkkër petit lu gën a metti loolu mi ngi mel ne xool amee euh, sa jabar ni mu sonnee ci yow nga am ak moom sa taaw bu jigéen bee naa ma war a ñëw un bonjour na la coppet ci ay loxoom loo am jox ma te fooy dem moom ngay àndal foo ma ne ñu ànd ma bañ ndax bugguma sax kenn gis ma ak yow sama kër gi nga may seet si bañ sax sama ay nawle fekk la fa parce que nawlowuma la moo tax ma ne la wutal appartement ma la fay fekk waa kooku doo ko bàyyi ba ñuñ ko nobanteeg nit il faut ngeen yeewu may naa Poté damay génn télé ñëpp dañ maa war a nopp su ma baaxul loo may doyee man de duma ko def sama frère mënu ko ne takkal kenn waaye am naa fula bu takkee ku bon ma ba ko moom ween bi ñu bokk mënuñ koo séddoo waaye am naa fulla goo xam ne boo takkee ku bon ma balaak moom soxna dafa war a nekk soxna ki jur war a jur ay doom dafa war a nekk soxna ah, mën ngaa sëy tas cent mille fois loolu yàlla moo koy tudd waaye mën ngaa baax ba àddina di tukki dara du la bonal parce que bés bii tey yaakaar naa jigéen ju ne war ngaa dugg ci néeg sangu ba set jàpp julli ñaari ràkk na yàlla may nga ñu ñuy ñuy sargal ñun jigéen ñi ñaari weer am nañ mois de mois de mars defe naa am euh, weeru yaay yi te jigéen ju ne yaay nga suñ borom kaweel la ba may la ñaari weer amul feetu ye amul feetu papa ñu ngi koy créer mais amul kon jigéen dafa war a jox bopp valeur valeur du or nee naa leen valeur du cuub bii di tàkk valeur du télévision moo la koy def Youssou Ndour ci deretam li mu doon ci deretam la nekk ndax bu newutoon ci deretam dina fi def ay erreur yoo xam ne dalay leer ni ku baax am nga ay noon te noon bu lay topp jàpp la day xool ka la gën a jege mu jaare ca li ma naan souvent yuusu jàmbaar la ndax fi mu jaar ba yegg si fii ci ay xaaxaam lay romb di jéggi di tëb di jéggi di tëb te dëkkee tëb te noppaliku woo day indi day indi day da ngay sonn te boobu ba tey bàyyiwul nekk ci musique bi du tax mu bàyyi parce que jàpp naa ne am na expérience boo xamante ne nii nit ki la topp ay pexeem bu sottiwul mën na laa mën na xaritook yow fekk na dara lam doon def moo sottiwul jigéen dafa doy waar problème yu rëy yi ci àddina yëpp jigéen ko indi poroblème yu rëy yi ci àddina yëpp lan moo tax ñuy sargal ku bëgg a lakk réew lan moo tax ñuy sargal jigéen boo xam ne day am jëkkër am far lan moo tax ñu war a sargal ci euh, suñu weer bii nga xam ne weeru jigéen ñi la ñu war ci sargal jigéen joo xam ne alalu mbaraan lay dundee am nga droit nopp ku la neex waaye xolal nit dafay sincère ki nga àndal di lekk ay million am mu nob la te yàlla tax sa nawle la nopp ko boo ko nobul bokkoog li mu yor te xam ne millions yooyu nga lekk yàqamti la mais sa wërsëg la boo toogoon suñu borom jox la ko te doo ko mbaraan doo ci ñaaw bu kenn sargal ku bon weer bii du weeru jigéen ju bon jigéen ñu baax ñi lañu ñu ciy sargal am nga droit génn jëkkëru jàmbur loolu yow la waaye bu ko tàqaleeg jabaram jur na fa ay doom ba pare mu am ay mbokkam am nga droit génn xale bu ndaw bu jeexalul dara waaye bu ko tàqaleeg ay famem di ko wutloo appartement ah mais dëgg la ah oustaz pekeeru nga est-ce que pekeeru nga oustaz yow mais ñaari oustaz yi ñaari pikir ngeen di jël yéen conférence ya tax <laughs> ay yàlla na ko fi yàlla bàyyi suñu papa jooju macha allah ah ah paa yeewu télé waa <laughs> ay kon jigéen ñi góorgóorlu leen ngeen am valeur ndax valeur boo ko amee sa fierté waajur ngay doon ba pare nekk sa fierté jëkkër ndax lii ñu nekkee du wëy du wëy nit a ngi def loo xamante ne neexu ko waaye boo wéetee yeddal sa bopp mais am na ci yoo xam ne mais tu abuses di incarner loo xam ne nekkul ci yow man Bouba Ndour moo ma nopp man euh, man euh, président Congo bi moo ma nopp alors que dara du ci dëgg boobu yaa ngi ut ay bunt yoo xam ne ci ngay iree nit ñi waa léegi dof bi ñëw ci yow nag di génn ak yow danaan ah comme kii buuba nduura ko nopp buuba jeexalul dara kon man naa fi rey sans bopp fekk xamul sax buuba yow leen dañ leen di dóor buuba nduur mi muy tudd moom musul ñëw TFM musul dugg bu bureau buuba ba buuba di ko may cent léegi nag muy mbuboo buuba pour yow boo ñëwee ne buuba fu jaar moom xam naa ku fa jaar amoo loo joxe daggal sa bopp da rey de dawal booy jeexal mu lay sànni bala ngaa jeexal dawal li nga jot a dese nga jariñoo ko àddina dafa metti góor ñi yeewu leen tollootu leen fu ngeen di jëlee ay 50 millions 20 millions 30 millions di ko jox jigéen te ba seen ndey ak seen baay seen jabar am nga sœur bu ko soxla te nag kaay ma wax la 20 millions yi ngay xeeb ba bëgg koo sànni ci àll bi boo dimbalee sa ñaari frère wala sa ñaari sœur seen famille dañuy yëkkatiku ci kaw dara la ñuy doon parce que lu benn mën fukk ko ko dàq kon nag weer bii ñi ñu ciy sargal mooy ñi nga xamante ne macha allah ñi ngi leen di wooyee. ajaratu waru walu yaxya yaayu aram jéen ay ñoom mère aram jéen yaayu petit yaayu Medoune Diouf jigéen ñi nga xam ne danoo mun muñ muñ ba jur doom yii bu leen jaawale journée de la femme ku ne toog fleur dangay dem jox sa fleur dof ah ñoom la <laughs> tuuti ndigg ay wax <laughs> toq ndigg moom moom dafa dem di vacciné wu ñu ne ko tool amoo âge vaccin mën na leen mais g j'ai 39 ans ñu ne ko non booy demal toog <laughs> muy dem ñu woo ko gis ndigili rek na ko cas social yi la ñuy vacciné kaay góorgóorlu leen ngeen fonk seen bopp gis nga ñafe ba am fierté la waa ku sañoon tey yu sundu dina nekk sa patron ku sañoon doo am sa yëfu bopp am say employé lan moo tax ngeen di nangu góor ñi di leen mënal seen der yi di yàqu mais na la góor may man góor mën na ñëw suba may ma 100 millions waaye boo weetee di nga xam ne cent millions yii yow yaa perte mais perte ma yaa ngi nax ku góor ki foog ne ku góor ki dafa perte moom it la mu wut si woon am na ko xanaa nit ñu dofuj ay milliards foo ko bàyyi xam nga ne deret dana tuuru de milliards xale yu góor yi dinañ jël seeni million di bind seeni seg yi di signé gauche di sànni muy dem. nga foog na yaa ngi koy nax yaa ngi koy nax mais yaa ngi nax sa bopp tonton Bouba I love you <laughs> <laughs> man dama ko bëgg parce que macha allah moom dafa bari ay valeur ñuy nuyu euh, madame Ndour yaayu prince njaga Bouba nduur dafa nit ñi xamuñu ko nag li ma naan man duma gërëm kenn ndax daraam ndax man lu ma nit war a may am naa ko mooy am naa Serigne Saliou waaye tamit Sénégal dañoo tàmm kuy waxal nit baax baaxam dañuy foog ne daraa tax Bouba Ndour dafa bari ay valeur li ma ne leen euh, weer wi ñi ci war a sargar mooy ay ñoom yaay Youssou nduur xam nga yuusu dafa woy alin Sitoé jaata ngeen foog ne da ko woy ndax dañ ko tuddee bata noonu gaynde la woon ci biir jigéen ñi jàmbaar la woon ci biir jigéen ñi ngeen foog ne ajaaloo mi may wax nii borom Aminata Tour dañ koy sargal nii pour rien ajaaloo gaynde la ba mu juddoo ba tey lu mu am moo ko liggéey góor joxu ko ko njàmbur njàmbur la Louga la duge jóge ku bon newu fa seet leen nag jigéen ju dem ba perte valeur am mais kooku nag doon war a vérifier xool fu mu bokk souvent biir mooy jur xetax gis ngeen buy ni mu neexee en plus day faj antibiotique la noon la buy garaawee avant nga koo ubbi parce que dafa am lu ànd ak li li couvrir buy bi doomu buy bala nga koo toj sa yaram dana xasan ndax dafa am xetax noonu la jur doom mel souvent nga judd foo xam ne neexu la waaye nga judd wan leen ni li samay waajur yàqoon yëpp dinaa ko defar ci lu baax souvent nga baax ba mel ni kenn mënu la ko wax nga jur doom jula jaaxal waaye ngeen muñ loo ko yàlla rek mais dafa am yoo xam ne nag balaa yàlla di la dimbali yaay dimbali sa bopp appalaay boo amee beneen songu jigéen ñu sargal jigéen yi ko mérito bàyyi leen di masatle ay nuun ñépp yemuñu il faut que buñ jëm amatee teraanga bu ñuy joxe ñu xool ki ko soxla ba ci ndimbal fii Sénégal milliardaires yeey mayante xaalis dafa am ñoo xam ne dañoo soxla ku leen may appalaay boo ko yokkee ma jël may naa ko jigéen ñi am valeur ñëpp moom waaw dóor jigéen ñi ay waay ëmb dafa metti ba pare dafa ñaaw kon ki nga xam ne moo la nopp keroog ba nga koy takk mu mel na per mu ñëw sa biir kër sànni ay ay yu baaxam takk ndiggam ne damay sëy ndax nag sëy dëggantaan ak taalibe képp ko mën sëy dafa am yu sew yu ci nekk yoo xamante ne nii bu jigéen demee ba xam ko ba di la ko defal téye ko yow mi yor jigéen ci sa biir kër nekk góor te amoo loo ko may may ko jàmm te dëkk di ko wax je may ko jàmm te foo wéeteeg moom xamal ko ne ko bu ñëpp toogee mën naa bañ a jéng ndax mbokk dafa doywaar waaye dama bëgg bu ñëpp toogee yow del gis sama jéng ndax am na góor ñu am kersa mënuñu mbooloo toog ñu lay jox ay biis mënuñu mbooloo toog ñu lay joxoñ naan la je waaye ay bët day wax kon dee leen defal jigéen ñi noonu jigéen ji ko mérito am na jigéen ñoo xamante ne ña nga bari ay valeur te ngeen gisu leen waaye yàlla dina leen fay bu leen xaddi sa nawle bi war a ñëw ci yow nga am ay valeur ñuy jël seen alal di ko jox ku mel ni Amina Poté jël seeni doole di ko jox ku mel ne Amina Poté nga nekk ci ruq naan pourtant Poté maa ko ëpp valeur lan moo tax defaluñ ma lii yàllaay fay kooku gisu la nit képp la te nit matul mais suñ borom mi la sàkk fàttewu la foofu mu la teg mooy sa place bi laay bës a ngi ñëw muy fii wala fi ñu jëm dana la yëkkati ba nga ne ndekete suñ borom lii la ma dencaloon nga nekk jigéen nekk ci ay xat-xat sa nawle yi nga xaman xamanteel ñi nga màggandool nekkuñ ci xat-xat yooyu ba tax nga doyal ci àddina ne xanaa yàlla dama fàtte wala bugguma wala sama yaaya ko liggéeyul déedéet bu yàlla ne rey defar da koy tojote ba mu pëndëx mu jël taawam nag di tabax benn par benn bés bu sottee yaay gën a njool monument bii ci Mamel kon bul xaddi bul mës xaddi bu mu metti ba nga daw bul bëgg ci lii xew xale yu jigéen ñi lii ñu xewal nii or beeg greffage beeg palmaan yeeg yi bula ko dara jaral bula ko dara jaral rawatina na nga am benn doom rek di jigéen uufal sàmmal wéttalil yiiral ndax loolooy tax ëllëg bu sa doom yi màggee nang leen uufee woon lañ leen di uufee Pape Cheikh démb dafa wax wax joo xam ne moom xamu ko sax ndax dane sam papa moo ma yoroon nekkoon sama papa mais léegi man maay papaam loolu la njaboot di jariñ mais ci kaw nag yor ba baax da ko wax rek ma ne ko bàyyi li ngay defal sa waajur yi umpul kenn waaye yor baa baaxoon kon da ngay fay bor bi li ma naan bu fekkoon ne bakkan dafa am foo xam ne dañ ko fay tayle boo namee ñi nga ñàkk da ngay dem jëli leen barki cheikhul xadim mbakke dinaa joxe li ma am ci alal ba pare dagg dara ci samay cër da wëri fiñ may jaayaatee sama bakkanu yaay ma indiwaat ko di ko béggalaat di ko béggalaat di ko béggalaat ba mu demaat ma jëndiwaat ko parce que damaa xam fi mu jaar Fati yaa rafet mais yow lan nga xewle félicitation Eh, macha allah merci beaucoup <laughs> elle est dama ko bëgg loolu mooy éducation ay temps nga gis doomu aadama di génn télé comme wax ji day neex waaye ñi xam nit éducation bi bi muy dégager moom lañuy ñuy apprécier dafa am ñoo xam ne la ngay wax dañ koy dégg am ñoo xam ne yow ki nga doon dañuy dugg ci sa biir xam yaay kan sargal leen jigéen ñi dañ ko soxla. encouragé leen waaw góor da yokk jom waaw góor man tey lii may def bu kenn ne woon ci oreillette bi allo poté yaa ngi fiy toj rek damay naaw moo tax waaw góor nit ki nga àndal amoon loo ko may mu lay sëyal yoral la sa ndey ak sa baay di jigéen ju baax ba yow nga xam ne kii baax na bu bës bi jotee boo amul loo ko may wéetal ak moom ci nekk deux heures de temps di wax di jooy deux heures de temps ne ko kaay dama la soxla ba mu ñëw mbaa jàmm la nga ne ko toogal nga yootu néeg bi ne kàpp fit ba déjà dem na nga di ko joxoñ di wax nga koy joxoñ di ko wax gor la loolu nga ko wax moo dàq range bi loolu nga ko wax barki sëriñ Touba Mbacke moo dàq xaalis bi nga ko waroon a may ak fleur bi nga ko waroon jox booy dem nag ne ko xam naa li ngay représenté ci sama àddina ay buddutoon yow dem bam neex la nga dëppaat ne ko ay buddutoon yow ah kooku gor la jigéen ñi dañ ko soxla jigéen ñaa ngi yenu paanu jën yi muy siit ci seen kaw buñ ñëwee di jaay jën ci mbedd mi fuñ dugg man maay jënd jën bi ba pare bëgguma mu dugg ci sama kër ndax lan dama naan damaa cuuraay yow ee eh, janq bi demal ca mbedd ma mu jaay la bu mu yegg seeg paan bi ay waay jigéen dee na de sargal leen jigéen ñi jigéen ñaa ngi ci tool bi sol dàll yoo xamante ne nii chaque jour ña nga taxaw bu ñu dawee deux pas dàll bi dagg ñu taxaw ci digg àll bi di defaraat dàll bi ba mu yegg ak findi feer buñ paree ñu sol ko dugg ci tool bi ku tax ñu def ko sa toolu jëkkër la sa njaboota ci lekk ngay daw sargal leen jigéen ñi il faut ñu sargal jigéen ñi jigéen dafa mérito ku ko sargal barki Cheikhul Khadim Mbàkke suñ borom moo xam li tax newul ni jiital na jigéen parce que pouvoir yi mu jox jigéen richesse yi ne ci jigéen valeur yi ne ci jigéen newul ci benn mbindeef de leen toppatoo jigéen ñi te di leen may xaalis bu ngeen ko amee bala ngaa jël sa alal nag dem di ko jox beneen jigéen boo xam ne mi ngi lay nax ñu dimbali la jox ko sa ndey ji sonnoon ci yow ba tax tey nga doon li nga doon jox ko sa baay ji la ñaanaloon ba tax nga am daraja ji nga am nit day gëstu mbokkam bul nangu kenn di la dugal ci ruq di la tàqaleeg say mbokk di la jëlal ay appartement yoo xam ne di la di def di déplacer sëriñ dëkk ak dëkk wutal sëriñ bi kër teg ko fa naan ko fasal ma pëti fasal ma petit ñu lay fas rek ngay dem di bind seeg rek di yóbbu du yow teyoo ko waaye boo demee ba ca biir nag di def war ngaa xam ni lii may def du sama mbaax lii may def du lu normal il faut ngeen góorgóorlu il faut que ñu defaraat ñun suñu bopp balaa ñuy wax ci réew mu naqari il faut que ñun ñu neexal suñu àddina ba pare doog a xool jigéen rek moo mën a taal réew jigéen kese moo mën a taal réew petit boo ñu mayaatee Youssou Ndour bi ñu dégluwaat ko ñu gën a xam valeuru jigéen ñi bul dóor bul saaga defal leen jigéen ñi li ñu bëgg ndax jigéen ngay xëy génn yaa xam da ngaa lijjanti ji wala danga seeti beneen jigéen ni moom mu ne ci waañ bi di kër këri bu dee nen la sax mu omelette ko boo ñëwee mu tàngalaat ko di la ko jox boo lekkee mu jeex sax fitam day dem ndax danaan sama jëkkër lekk na te suurul dafa jeexal nen bi bu ngeen taajee boolu añ bi mu yendoo togg muy dagg li gën a baax ci ndab li di la ko tegal di bàyyi say nawle boo lekkee tuuti teg sa kuddu fekk na yaa nga lekk beneen kër jigéen muy xalaat ndax ay yow li ma togg xëy na neexul par mu topp la waa bee bi neexul bala moo kontaan nga lekk ba sa biir fees jigéen jëkkëram a ko gënal doomam ndax nag suñ boroom doo ji fii kaani xëy suba mu la koy defal suukar doom ju baax dañ naan jaamu sa jëkkër a koy joxe waaye góor gu ci bëgg doom ju baax war nga di neexal sa jabar ndax mu am courage yu jaamu la bu boobaa doom ja bu juddoo noobul lay doon dina moytu lu bon di daw lu gënut ci moom appalaa yokkal yu sunduur bi jigéen ñi déglu ko seen xol di neex il faut jigéen ñi ñu xam ne jàmbaar lañu yokk ko ba ci kaw ay ca heure bi heure bi dab nañu euh, mais nii la ñuy continuer ba 8 mars bi yegg si ci kàttanu Serigne Saliou Mbacké hmm, jigéen ñi yéen tamit góor góorlu leen ñi dëng jéem leen a jubbanti seen bopp nit war naa daw luñ ko xasee nit war naa góorlu ëllëg ba ay doomam mu sàkkal leen yoon wu sell kii nee na dañ naan ko sa papa da daan agressé da daan gaze ma ne ko moom toppal fi baayam deeyee ak baayam actuellement fan la nekk ak ay maamam lan la ñu defoon àddina ku yàlla sàkk lëmës na la ak loo xamante ne nii ku ne mën na la koo xasee kon bàyyi leen di waxante lu ñaaw nee naa ko da ngay xale gaaw a tiit moo tax ñu wax la loolu ci sa papa ngay rapi rapi ma ne ko moom danga koy laaj ana papaam maamam bi jur papaam lu mu fi defoon papaam bu dee mi ngi dund actuellement fu mu féete lim am nu mu def ba am ko wala bu dee dee na fan la dee bu leen nangu ku leen xoqatal di leen xas ci seeni maam yow lañ wax jéem a la baax. te ngeen toppatoo jigéen ñu baax ñi ci réew mi ndax munoo am sa jabar mu baax fête bi ñëw nga war koo jox fleur bi war koo jox poème bi ngay dem di ko jox beneen jigéen boo xam ne juralu la doom sëyalu la boo amul jabar jox ko sa ndey wala say sœur wala jigéen ji nga am ci moom yaakaar ne kii bu ma ko takkee ëllëg soxna lay doon les filles nag wala wala wala toutes les femmes du monde courage rawatina jigéen ñi nekk ci diaspora bi chaque jour ci jigéen ñi la ñuy wax ba mars jeex parce que jigéen ñi li ñu def ci àddina bari na femmes yi ci diaspora bi ña nga nelaw ku ci tëdd dangay ngay xapp-xappal ay bët di nelaw nelaw lu fekk na nelawoo sa bopp baa genn wàll gaa ngi Sénégal genn wàll gaa ngi ci fa nga nekk genn wàll gaa ngi ci nan ngay def ba tekki ba ñibbiwaat senegal ndax sa réew boo fi génnee dëkk ba nga nekk lum neex neex neex bëgg ngaa takk lu dëgër delsi moo tax yéen ñëpp courage heure bi dab nañu suba jàmm ak salaam lañuy yeggali ci kàttanu sëriñ saaliw di leen ñaanal gudd fan di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal nag jigéen ñëpp yal na yàlla sàmm sàmm seeni njaboot ci barke Cheikhul Khadim petit merci beaucoup. Euh, merci beaucoup Medoune Diouf surtout Boursine bi Apulaay mention spéciale yow ak Tok ak Mansour Gueye ak Daouda Euh, ka nekk ca téléphone ba ñoom ñëpp ajaami ci euh, euh, réseau social bi merci beaucoup yéen ñi ñu doon seetaan rendez-vous demain incha allahu rabbi ci kattanu Serigne saaliw ñu ngi tuub nag démb li tax ñëwuñu dañoo xawoon a sonn tuuti doon noppaliku ndax xam nga ne yaram buy tooy rek faaw mu di waaye di leen wax nag lépp ci jàmm lay mujj ndax am nañ Serigne Saliou gannaaw ak yàlla ak yonent bi ak Seydina Mohamed te suñuy waajur ñaanal nañu ñu kon nag ñu ngi leen di wax yéen it dénk nañ leen Mohamed ak Cheikhul Khadim ak ay waa këram kon euh, bonne journée nekk leen ci jàmm bonne fête pour toutes les femmes du monde I love you